sëriñ bamba mës naa wax cheikh mbacke diouf ni ko danga xamul ni bu ma woon ibra mu ñëw ma ni ko yàlla mi taxoon nga di ma topp ko du tax mu dellu ginnaaw si topp gi mu ma toppoon waaye defe manit fay naa ko ndax bu dajale woon ñépp ñu mu àndal na leen kee taxoon ngeen topp ma wàcc naa ko du tax kenn dellu ginnaaw jërëjëfe borom jaaraama cheikh ibrahima fall